wajal Daarayni optique yéen waa Touba Mbàkke ak li ko wër moo xam ngeen nekk Diourbel Kaolack Louga ba Saint-Louis seen coono jeex na si déplacement pour dem ba Ndakaaru ngir ay lunettes yu baax lunettes de qualité fii si Touba 28 ay mbokku taalibe yu dégg waxi Serigne Touba ji si Matlabul Fawzayni daan ni fais affluer tout ce qui est bien-être et bien fait du patrimoine des six coté de la planète vers ma demeure la cité bénite de Touba lépp li nga xam ne xewul ak lu baax mu nekk fii ci Touba ñi di ko jëriñoo Nooru Daarayni optique nekk fii ci dëkk bu sell bii di Touba dend ak pharmacie Serigne Fallou Mbacke bu docteur Thioban mbokk yi seen boutique Nooru Daarayni optique moo leen andil bépp xeetu lunette bi ngeen yittewoo moo xam vision de près vision de loin progressif photo anti reflet wala bleu contrôle parce que de soleil bàyyi wuñ dara ñun waa Nooru Daarayni optique waaye li ci gën a neex ba dax ci mooy lépp dafa ànd ak qualité boole ko garantie un an mbokk des na leneen moo ci a neex mooy peexu lunette lii ñun waa Nuru Daarayni Optique rek ñoo koy def mbokk yi bu ngeen ñëwee suñu boutique bii di Nuru Daarayni Optique ñu nekk Touba daa ngeen fa fekk ay mbokku taalibe yu yaru lool man lool seen liggéey ñu teeru leen teral leen tàmbalee ko ci café Touba waa Nuru Daarayni Optique ñoo murite waay ak yeneen xeetu xéwal ba noppi fajal leen seen soxla ngir yeneen leer ñun waa Nuru Daarayni Optique mën ngeen ñëwoo ci 77 614 63 63 77 978 09 18 seen boutique Nourou Darayni dina liggéey ci yitte ak assurance Nourou Darayni optique mooy ñaanal Serigne Mountakha Mbacké xalif général des mourides mu yàgg fi lool te ànd ak wér ci noonu ñu ngi naan jërëjëf Serigne Touba. yaa baru rahmatuka arjaa indana min amali nasibu faghfir lana wa li jamiil muslimin ajmain wal muslimaati kulla hiin kulla ayn ولا تواقفنا بسوء الأدب وبالتجرع وكسر اللاعبين